démb bi de dootu fi amati moom ne xanaa na xari ngay wax xew démb ba daal Mariama foo jëm mu ne ma damay dem xew ba Mariama toog ñu garam bu ba tàngaay bi mu sol rek moo xoro moo ñorol doom yow daal ñoo dem ñu war a tudd liir bi man maa ngi xalaat sama ndawtali ma war a joxe pour bu ñuy mayee jaar ñu delloo ma Mariama nekk dañoo tudd liir bi rek man juróomi doom si saa si. juróomi doom ma juróomi doom la am. ah bu tudd rëy na. juróomi doom te li si gën a métti xam nga lan la juróomi doom ku nekk naan nii si laax bi naan nii ma leen di sepp di teg di leen sepp di teg xool xëcc sama karaaf duy si laax ba mu fees def si soow maa ngi sa yoon ba. ma la indi la raw. boo ma indi. jëkkër bi mi ci koñ bi. Hmm. moom daal ba dee bee demee ba tey sa dugub doom sa dugub doom sa la wax. Hmm. dégg naa ku ku dugg sa sa sa sa morom génn. njottoon naa ko laa la wax ko njottoon naa ko parce day fat rek waaw. kooku ah. gi métti na de. man maa ngi dee. Hmm. te moom daal métti. tukki démb koñ ba. am na yu fa xew yu gëyaaw. koñ ba. seen koñ. seen koñ yéen. xëy bi ñu naan Cheikh Pasteur Fall mu nga. waaw waaw bu yoo sàccee. Pasteur Fall sàccee. Cheikh Fall moo yéeg si si kaw étage bi étage bi nekk suñu kon. waaw doon sàcc antenne. ñu daal ñu sàcc antenne bi ba mu yàggee benn may gis ko yéeg yuuxu sàccee sàccee sàccee Cheikh Fall tëb ci kaw yeeg daanu. ñu koy daanu yeeg may bi ne ay waay ay waay doomu jàmbur jënd. doomu jàmbur yi dee na Cheikh Fall jékki-jékki yeeg jóg fëggatu firi may bi jékki-jékki yeeg nii aywa xëy bi dee na Cheikh Fall yooyu yëpp jóg dafa jóg yeeg ne nii bum dafa explosé. sëbët nii. maa ngi xool kañ lan la. yow yaa biir yow yaa ëmb. caat dara jotu ko. ah yow da ngay indi ba pare bëgg a yóbbu. du fi amee déedéet dara jotu ko. dara jotu ko laa wax. kon nag bu dugal ko fi nga génne woon dara jotu ko. muy ne yaay. benn baa kenn mën nañu ko. c'est ça moo expliqué ni bum. Eh, benn baa. ci wàllu boobu boobu sax lay wax ak yow. ndeysaan. ndeysaan. sam benn meer. Hmm. bi ñu naan Mère Awa Diallo. incha Mère Awa Diallo. ndambe. ku mun toogu ndambe. incha allah man sax yokku. ku mun toogu toog. sama paa peefee. ku mun a defar mayonnaise bu dang. moo doon toog. não nga doon togg ndeysaan não não rek ndambe bi moo ëpp rose não não ndambe bi moo tax wóor na yàlla surtout bu ma mère não bu yàgg ndambe bi moo tax jéene ba maquillage não ndambe não kàttu mère bi moo dee wóor na yàlla waaye c'est pas ba mu ñëw bëm tax déewu de dafa dëgg daw sampai kita ne bëm ñëpp dañuy jékki daw kan ne ko yaay kan ne de wa se xam ñani ba ci ti sunna de weekend da daw ya so awe ma vamos a bayar am teel awa awa awa awa yow xanaa sa yaram lu ndaw aw weeru koor gi diggu njolor gi jeeg ju baax di préparer seen borom kër ni ni ñi ñi ñi dégg nga maam ah di fas ini julli ngir jam suñu borom te suñu borom instant bi xamul refus loo ko ñaan mu accepte weeru koor gi weeru wéeru jéggal la weeru jaamu suñu borom la ndem sax suñu borom at yépp da ko war di jaam mais weer bi nag da ci raw ah xanaa sax yow yow yow yow yow bo def lu bon ba weer ko rek jox mëna daw tuti nga pause standby. yaay kii sama xarit la dafa ñew ñuy waxtaan rek. mbële ma sama xarit la ci dafa ñew ñuy waxtaan yow sax xanaa bonne des choses weeru ko gi xanaa sax yow nga mën a fenn ak jiw yow do woor wor lu woo julli yow yow wax kañ laa la gëj gis julli ah ba sa maam dee laa la gëj gis julli ñaari fan la ba léegi mënu laa gis nga laa gis a ko ragalee suñu borom jox ko waaye dara. eh eh ne nga naan ndox mi àll waxal allah waxal suñu eh eh yow déedéet. parce que yéen yaa ngi ci hommage. Niyende Oman? Niyende Fi nefsin sayıkatin mavdi Kunyam cendirda Masade Atullahi yumuhta Ya ya ya ya bu ya ya ya Ya bir sedan namade Lisan Ay ñun fu ñu nga katee sëb Ay waay fu ñu nga ñun amuñu ku dul ñun gisuñu ku dul ndambe kuyu mën a ayee xaar faañi bakkan bu ñam daamu sa dee waaye ndambe dem na <laughs>